Kounet bi TV Sénégal asalaamaaleykum ñuy am mbégte bu baax a baax di ànd ak yéen ngir di leen faram-fàcceel yi jot a ruusee ci biir réew mi dañu koy dal di doore rek ak lu ñeel. ki nga xam ne moom moo di euh, Sadio Mané ab forfem doon na xibaar boo xam ne adduna wérngel këpp fi ne daal dina leen di découragé loo ci coupe du monde bay am ca Qatar mu di euh, Doha Sadio Mané nag gaañu gaañu bi gaañu woon te ñu ko doon xeeb yaakaaroon na sax dana ko tënk ci jongante yu njëkk yi ba mu mën a dem fekki gaynde yi ca Qatar malheureusement pour Sénégal Sadio du mujjee dem tànk ba dafa mujjee rek daal di jéggi dayoo ba ci sax examen yu mujj yi nga xam ne def na ko ñu daal di gis ne rek il faut mu daal di subir ab opération démb la ko daal di amal opération boo xam ne rek dafa daal di ànd ak succès maanaam amul lenn loo xam ne rek daal dina cay am comme ay rëq-rëq waaye la nga xam ne rek moom moo ca nekk inconvénient Modou Sadio dana toog ñetti weer yoo xam ne rek du dóor bal lu ni mel nag nekk loo xam ne luy xaw a compliqué ci moom lay doon ndaxte Sadio ku ne xam ne ni dafa nekk ci yoon carrière boo xam ne rek li muy xëccoo fi ne moom moo di ballon d'or bi te li nga xam ne moom moo di lu ci mel ni coupe du monde maanaam jongante yi gën a màgg ci àdduna il faut que mu mën caa bokk rek ngir mën a dal di am yenn points yi nga xam ne daf koy permettre tey mu mën a dal di am balon door dafay méngoo bu baax a baax ak kàddu yi nga xam ne. Sadio Mané yekki na ko démb rek di xam le ne lu ni mel dafay mel ni sax daf koy bëgg xañ li nga xam ne moom moo di euh, champion euh, championnat mu mel ni rek jamono jilee euh, ku waay di waxal la nga koy xamal moom moo di dem ak Sadio Mané ñàkk ak demam du moins ca coupe du monde ba ca luy metti lay doon ci équipe nationale bu Sénégal équipe nationale bu Sénégal ñu ngay ànd ak bopp bu yëkkati ko ca kaw ndax gis nañu ci seenu séance su entraînement mu mel ni daal fi ne dañoo gën a xiif comme niñ leen tuddee gaynde ca nañu koy xamle rek ba ñu taseel ci àll bi rek danañu la fadd gaynde a ngay tàmbali entraînement yoo xam ne rek ña nga ca forme bu baax a baax comme ni ko Aliou Cissé daal di xam xamle waaye la ñu jot a jàppandi rek moom moo di ginnaaw bu Sadio Dembélé itam gaynde ya ñu benn yoon li nga xam ne moom moo di confiance lépp lépp lu ñu war a def ña ngi koy def ngir waajal seen upp jongante bu njëkk seen digg ak Pays-Bas ci mbirum Sadio Mané la ñuy desandi ba tey daal di yekki kaddu yi nga xam ne Aliou Cissé daal dina koy xamle ginnaaw bu mu waree yóbbu ñaar fukk ak juróom-benn ci ay gaynde mu boole woon te Sadio nag mais malheureusement que Sadio mënul daal di euh, football dañu kaa daal di forfait ñu yaakaaru ne sax Sakho lay remplacer ki nga xam ne moo di euh, Sadio Mané ñeneen ña di wax na woo Mbaye Diagne ak ñeneen ñay wax ca geneen wàll ga itam na woo keneen ak keneen waaye si Cissé dafa daal di jël ab dogal. bañ a remplacer Sadio Mané ak kenn ñenn ñi nag dañoo jàpp ne moom Aliou Cissé li muy def waru ko def war na mën a dal di xëccaat beneen joueur teg ko ca poste Sadio Mané boobee waaye itam jox na ay explication sénégalais yi ana moo tax rek mënul jël beneen joueur dal di koy teg ca fa Sadio Mané nekkoon. ñu àddu wax ci leneen mu di lu doy waar li nga xam ne rek moom moo daal di euh, xewati euh, ci euh, atum 2018 la xew Abdoulaye Ba mi nga xam ne moom moo faatoon doomam ju am juróom ñaari at na mu ko fàtte mu daal di koy nettali ne da ko daal di koñe ci miir bi plusieurs fois ba noppi daal di koy door ci ab point ba loolu moo ko daal di faat ginnaaw bu ñu ko tëjee woon ci deux mille dix-huit ba léegi nag daal di nañu koy jugé ca tribunal flagrant délit bu géej Pikine Géejawaay fa la ñu ko atte lu ñu mel nag tax na ñu daal di jàpp ne rek li nga xam ne moom moo di atte boobu ak nañu ko atte daal di koy condamné à la réclusion réclusion réclusion euh, criminelle à perpétuité ci chambre criminelle tribunal euh, bu euh, grande instance bu Pikine Guédiawaye fa la ko àttee nag peine boo xam ne jamono jile moom ab Ablaye Ba moomu dafay daal di tëdd ci kaso gi giru ko dundam ci situation bu métti métti boo xam ne rek moom daal dinay rëcc bu baax a baax jëf ji nga xam ne jëf na ko daal di koy jëmale ci doomam Pape Alé Niang ay taskatu xibaar dajaloo nañu daal di amal manifestation comme ni ñu ko ah, daal di waxee fan yi yëpp di wax rek ne danañu amal a manifestation jëmale ko ci Pape Alé mi ñu jàpp a ah, taskatu xibaar yi nag li ñu daal xam le moom moo di Pape Alé Niang ah, jàpp ñu ko rek ngir bëgg kaa jàpp dañu ko jàpp ngir bëgg ka fagagal wala li muy wax arrangé wul gouvernement bi ab détenu politique lañ ko jàppee ndax dañoo foog ne moom ak Sonko ñu lëkk ko ba tax rek ñu daal di koy jàpp ci ay mbir yoo xam ne moom la ñu koy toppee lu ci mel ni génnee ay dossier ultra confidentiel waaye itam ki nga xam ne moom moo di général Moussa Fall ñu ne moom lañ koy ba ci faatoog François Makabu dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ba ci lu jëm ci wàllum jëndum arme mi toll ci quarante cinq milliards lu ni mel nag tax na taskati xibaar yi tey ji wane nañu seen bopp bu baax a baax eh, ci place de la nation ngir wane rek seen naqar waaye itam li nga xam ne moom la ñu guuxoon te daal di koy yàbbi ci eh, président Macky Sall mu ngi ci biir kaso gi waaye teewu ko addu ci eh, tolluwaayu réew mi Pape Alé Niang mi nga xam ne eh, daal dinañu koy defeere ca Sébikotane ginnaaw bu mu addoo la mu jot a xamle moom moo di ci eh, ndorteel remercier taskati xibaar yi nga xam ne jot nañu kaa jàppale tey ba mbir mi agsi fii waaye itam bàyyilul dara ki nga xam ne moom moo di Abdou Karim Fofana ci lépp loo xam ne rek moom Pape Alé Niang xalaat na ko daal dina koy yebbil nee na Abdou Karim Fofana dafa bàyyi ba ñu jàpp ko ah, muy profito ci plateau télé yeeg site di koy attaqué waaye soo Sorika Wata Jaxaay di euh, Duli euh, Bukki euh, te ku ne xam na ni moom Pape Alé ku ko fekk muy ku ko dóor da ko fekk muy nelaw lu ni mel nag tax na mu daal di jàpp ne rek moom Abdou Karim Fofana mi du nit boo xam ne rek war nañ ko mën a déglu ndax li muy wax du lenn lu dul ay accusation Cheikh Ahmed Cissé daal dinay woote tey ab conférence de presse ginnaaw ah, bu ñu ko toppee ci ñetti plante yoo xam ne rek waa Jamra ñoo ko daal di ah, plainte ak wax ju ñaaw ji nga xam ne moom la dëkkee di wax ci réew mi di Sénégal ah, boobaak tey ñuy sàkku procureur bi daal di cay dugal loxoom Jamra ca mujjee dugal seen loxoom daal di koy porter plainte ba yóbbu plainte boobu ci tableau procureur bi le concerné nag daal dinay amal tey ab conférence de presse ginnaaw bu mu ko waxee woon ni ki démb mu mel ni dafay gën a dëggal boppam moom ci ñàkk baalu nee na baaluwul tey baaluwul ëllëg tooñul kenn bay baalu li mu wax moom la concerné te dafay daal di maintenir ay propos ah, bëggoon na nag kilifa yooyu daal di koy woo ci diine woo ko ci jotaay boo xam ne rek dañ ko waxtaanee ah, te lépp doon diine waaye bu ñu demee ba koy porter plainte ca tribunal yëf yi dafay mujjee rek ñu dem yoon daal di leen di atte ñu daal di koy ah, xamal rek ne li nga xam ne moom moo di wax ji ngay wax fan nga ko tek mu ne lépp lum mu ci mënti doon moom la concerné waaye tam mu daal di xamle ne bu ñu yaakaaree ne dañ ko ëpp doole ci réew mi ndax ñu bari dañ koo jàppee ab Gambien bi mu am Gambie moom la am fi nga xam ne moom moo di Sénégal waaye lu jëm ci wàllum plainte kiitu ko na plainte toll yi ci téeméer ci ay plainte bu ñëw dafay dal di encaissé Sidi Ahmed mbay mi ñu doon tudd ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko ba ñu bari jàppoon ne moom moo tëggu complot boobu moom ak Adji Sarr daal dinañu koy euh, teewlu tey nag euh, ca tribunal bu Ndakaaru ki ko doon teewlu du kenn ku dul le doyen des juges xam Diallo moom moo ko doon déglu ci fond wu dossier boobu ak la ca dugal aw turam ndax avocat yi Ousmane Sonko yi ñoo doon saku ñu daal di teewlu ki nga xam ne moom moo di Sidi Ahmed mbay ngir ñu mën a rek daal di xam lan moo ci dugal turam ak complot buñ ko doon tudd diggam ak Adji Sarr ñu jeexalee xibaar yi ak journaliste Mamadou Ndiaye ba ca TFM dafa dal di euh, subir ab cambriolage ci ab appartement am ca ay samba boy ñoo fa dugg daal di cambriolé appartement ba du Ndiaye nag ci boppam moo ko daal di xamle ci euh, situation bu metti bi muy dund waaye itam xamle ko euh, ci ñàkk wolotu Sénégal gi nga xam ne fii la dëkk nee na dund sax léegi dafa waratul ba ci sa biir kër samba boy ya dañ fay dugg ngir yóbbu fa lépp loo xam ne rek moom la fa dencoon ci ay bagage am mu nekk loo xam ne nee na nit ñi fagaru waajal seen bopp te xam ne samba boy yaa ngi ci biir dëkk bi fi ne ñi ngi daji appartement yi jàmbur yi noonu la ko daal di xamle ci am message boo xam ne rek daal dina koy jàllale ci sénégalais yi ngir ñu mën a daal di wàggasndiku ci lu ni mel mbokk euh, net bi tv sénégal fii la ñu ndax keppe bii la jotaayu xibaar ba ëllëg incha allah jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm